ñoom ñoo ëpp ay milliards de waaye ñoo leen ëpp ay pexe li may wax di communiquer bu njëkk ba moom laay communiquer di masawu Balla Gaye di masawu liiru Diane di masawu nag képp koo xamante ne tey soppe Balla Gaye nga woon tey ñëwoon tey di supporter Balla Gaye balaa may waxtu Pikine damay leen di masawu parce que samay frère la ñu ni may communiquer kon su ma changé communiquer di leen xas rek dañuy naan Pape Sarr bi waxam solul tuba yi du dëgg maa ngi leen di masawu képp ku yeewoo géejawaay képp ku bëggoon Balla Gaye sonnoon ci kombaa bi ak ñi doon fanaan këram ñëpp man Pape Sarr si baatu Pikine ñu ngi leen di masawu pour ñu defaraat Balla Gaye champion la Boy ñaa da ko war a daan mu daan ko yaa ngi may dégg sax wax ju ñaaw ji jaru ko woon tey dam leen di tane parce que TikTok yi fépp lu ñaaw lu nekk wax nañ ma ko mais dam leen koy jégal jéggal naa leen ko ci xol bu sedd guy. billaahi. fan la Boy Niang jëm bu mu génnee ci Balla tout cas daal xam naa ne moom instant yii passé na bac pare na ci géejawaay. na fa revanche bu ci la pare na géejawaay xam nga lan la fa am Ahmed Aïdara jox ko maire bi. waaw loolu la ko. bàyyi loolu. bàyyi loolu du ma tontu ci loolu. mais mais xalifa général bi daan. bul ma fi tuddal keneen dama dugg ci kër daan fa mag ak rakk Boy Niang mu ngi fa treize victoire biir géejawaay waxuma leen nag pour xas leen parce que tey ñu amee naqar da ngay xool nooy waxee du dëgg loolu rek la